Aziz ma xam naa gërëm. voilà léegi ñu ngi koy def waaw. jërëjëf. bi day tàngal bi mais <laughs> ah, maa ngi leen di fay. Ah, nag ah, ngi leen di fay. Moussa nag moom kon li ñuy wax rek. Euh, li yëpp moom moo ñu ko jiin quoi moom moo ko lebal. Euh, lépp moom atte bor fay. Euh, mu nekk nit koo xamante ni mën naa wax ne deux mille quinze lañ njëkk tase New York. ci benn défilé mu nekk nit ku baax nit ku généreux nit ku bëgg nit nit ku fonk ci li nekk ni muy euh, kon tey bu amee bisam bi euh, yoon nañu teew fii parce que nag xam nga mo ñu war a ànd rek ñooy ànd te ñu bokk teen laxasoo ay gën kon bu yàlla dogalee yàlla may ko bisam bi ñu koy ñaanal lépp loo xamante ni maanaam séntu na ko ci ganam gi mu am yàlla defal ko ko dal di màgg ba am nawet bàyyi ñaan yàlla soxlaam si tamit euh, yàlla lafal leen ca bool daal loolu daal moom moo mooy seen relation. waaw mooy comme li ma la wax rek dañoo bokk lu mënul séddoo parce que suñu relation mooy euh, moom macha allah ci domaine bi mu nekk muy euh, domaine ñaw euh, mën naa wax ne moom moom modèle la ci maanaam modèle la ci quoi mooy modèle la ci mooy nit ñi dañ ko ciy bàyyi xel. nit ñi dañ ko ci suivre mu nekk koo xamante ni euh, yàlla may na ko ci tamit quoi. Euh, boo xoolee ci ay mbiram ak ay jaar-jaaram rek da xam ne nit ku fonk li mu yor la muy ñaw bi bokk kon loolu moom mooy suñu relation dañoo bokk lu ñu seetlu. mais dafa mel ni dafa am complicité bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci seen diggante. Euh, waaw mooy complicité diggante frère ak frère parce que comme li ma leen rek yàlla moom mooy boole li muy boole ay doomu aadama mooy. kii mën na jóge fii ki jóge fii mu boole leen. boole ñoom ñëpp ci euh, bëri nañ tase ay Las Vegas fu nekk tase nañ fa ci liggéey te ku ci nekkee ku ci nekk rek da ngay fonk sa morom yàpp sa morom téye sa morom kon euh, concurrence amul suñu biir. alors seen métier ban ban risque moo nekk ci seen métier quand parce que tout le temps dañuy faral di dégg ñu ne wàllum style moom dafa bëri risque yoo xamante ne moom moo ci nekk. Euh, àdduna nag lu amul risque amul ma parce que risque moom mooy euh, nit ki mooy jël engagement parce que boo amul boo jël risque doo am euh, gisuma ci ay risques yu bari lu dul comme métier nga jàng ko di ci liggéey yàlla may la ci booleel ci ay nit nga fonk leen loolu moo ci am solo. Mm-hmm. Mm-hmm. relation ak artistes yi tamit. artistes yëpp suñu ay frère lañ comme ñun ñun ak ñoom benn lañ parce que ñun mënuñoo dem sans ñoom ñoom it mënuñoo dem sans ñun tamit kon euh, ñoom yëpp suñu ay frère lañ suñu ay sœur lañ di leen ñaanal ci nekk rek ñu ci yàlla la ci ci dina nekk daal. lan ngay wax Moussa ci mariage bi wala sëyam bi nga xamante ni ci la nekk moom ak Yaxara parce que wax nañu ne ñaari célébrité ñaari célébrité yu sëy seen seen ànd du neex lu ci bëree bëri ndax li nga xamante ni dañ koy dund muy wàllum célèbre alors tey boo amoon loo koy wax ci mariage am ci digganteem ak Yaxar Ba. non mariage am digganteem ak Yaxar Ba mënuma ci wax parce que c'est parce que dafa am loo xamante ni nit ki moo ko ah. mais xam naa ne dinañ bàyyi ba si fii. Hmm. ñu mën ko gérer comme man tamit ak keneen na keneen kon. Euh, af du problème artiste quoi mhm. problème mu sëy la mhm. sëy moom mooy sëy affaire artiste beneen domaine la quoi sëy moom mooy sëy quoi te yaakaar naa ne li ma koy defee moom ma koy defee du ki siiw moom la sëyam war a nekk du ki siiw moom la sëyam nekk du ki siiw la sëyam war a nekk du ki mhm. la boo xam ne li ci ëpp solo mooy di leen ñaanal yàlla defal ci seen njaboot suñu borom defal na ko ndax sëy yaakaar naa ne loolu la ci nit ñi gën a taamu daal. am na solo merci ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di jaajëfal yëpp samay xel. ne ko a bon mu ne ko déedéet man li gën a bon yow jël nga loxo dóor mu ne ko waaye bul am problème ñun ñaar am nañu ñu gën a bon. mu ne ko ku ñu gën a bon ñun ñaar ñi mu ne ko am na mu ne mooy kat mu ne ku dundandoo ak sa wéy te gërëm ñu génn àddina te gërëm la moo ñu yées ñun ñaar kon nag kenn ku nekk ci bis bi ñuy jàng ci na suma tey mooy na ku nekk jéem fexe am ngërëm lañ buy juróom juróom ñett yi boo xamee seen cër jox leen ko sa àddina doon doon àjjana on temps daa ngay dem ci àjjana ku ñuy wax yàlla ku ñuy wax yonent ku ñuy wax ñaari wayjur ku ñuy wax njaboot ku ñuy wax sëriñ ku ñuy wax dëkkandoo ku ñuy wax autorité ak ku yàlla ragal dañ koy def yàlla